auzubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy baaxoo di topp ci site internet bi di 24 actu fu ngeen mën di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal disuwaat nañ ak yéen ci waxi sëriñ Tuuba yi sëriñ Tuuba xaada lahu laahu maxtaar lahu nee na wàññi leen tëdd bi bisa ngi ñëw kum neex tëdd kum neexul tëdd daldi bind ñetti dara ne yàlla mii ku xam ci moom dara doo ko moy ci dara àdduna mii ku xam ci moom dara doo ko fàggul dara ndax dara du fi des àllaaxira mii ku xam ci moom dara doo ko jëfal dara ba yéem ko ndax dara du fa doy sëriñ bi nee na sàcc ku koy def dangay gàtt fan ñàkk barke boo deeyee dem sawara am na ñu ne ku koy sàcc moom ci boppam la wax sëriñ bi nee na ku bëgga a yóbbaale la nga yor te boo àggee fekk fa la nga bëgg dangay folli nopp te fal bët sëriñ bi nee na dee leen mooy waxe bakkan ndax ku waxe bakkan ñu tontoo la bakkan ngeen féewoo te féewoo lu ne xañ na ca sëriñ bi nee na dee leen mooy gis seen bopp ndax ku gis boppam yàlla réer ko te ku yàlla réer saytaane wommat la te ku saytaane wommat safaan bala la jëme kon mbokk yi fii lañu yem ak yéen di leen jox dig daje di leen fàttali ne bu leen di fàtte di abonné ci suñu internet bi di 24actu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu